Dakar News 221, abonnez-vous. jër ngeen jëf mbokk yi rafetlu ànd bi ak Dakar News 221 leen wax mën ngeen way di abonné ci chaîne bi waaye di activer li nga xam ne ni mooy cloche de notification bi bu ko nexee saa su nekk di ngeen ci mën a ay xibaar yu wër te leer mbir mi mbokk yi dañ koy ñëw ak ki nga xam ne ni mooy sortie bi nga xam ne nii moom la Balla Gaye 2 def ginnaaw bi nga xamee ne nii kenn ci jegeñaale Lac de Guiers génn na joxe ay kàddu ci ki nga xam ne nii mooy Balla daal di ne Balla moo bokk na ci ñi nga xam ne nii ñoo doon xeex Lac de Guiers ci ndax Balla Gaye warul toog ba nga xam ne nii Siteu am na combat ak Lac de Guiers Balla di déggante ak moom waaye ci loolu kii di Omar Sakho ñu gën ko xam ci bàll Gaye numéro 2 génn na daal di def li nga xam ne ni mooy communiqué daal di xamal ne moom mosul woo Siteu amul sax numéro Siteu Mama la doon dégganteel te xaritam la waaye leer na nag li nga xam ne nii mooy euh, combat am moom mosul ne dana bëre ak moom donc euh, mu génnoon waaye xamal na it ba tey kenn mënut a dara moom Balla waaye it laaj nañ ko ci li nga xam ne ni mooy mbiru staffam yi nga xam ne ni la daan àndal waaye xamal na ni moom mosut a changé encadrement ñi mu doon ànd ak démb ak tey ñoom lay àndal ba tey li nga xam ne ni mooy changé mooy ñi nga xam ne ni bëgguñu ko dem nañ ñi nga xam ne ni bëgg nañ ko mu bëgg leen mu ngi ànd di continuer ak ñoom ñu daal di koy laaj ci ki nga xam ne ni mooy combat Lac de Guiers di victoire bi nga xam ne moom la Lac am ci kaw kii di Siteu waaye Balla Gaye nee na mu ngi félicité Lac de bu baax a baax a baax ñëwaat na it ci kii nga xam ne ni mooy euh, Sa Thiès nekk rakam euh, am combat war a bëri ak ki nga xam ne ni mooy Eumeu Sène mi nga xam ne moo mujjee daanu ak euh, Tapha Tine bu yàggul dara waaye Balla it dañ ko laaj ndax loolu revanche la am déet ndax gannaaw ba kii di Eumeu seen amoon na ci moom ay ndam waaye Balla xamal ne loolu du revanche combat la mook Saliou mook Sa Thiès ñooy bëre te ñu ngi njëkk bëre ñu ngi door a bëre ñoom ñaar donc nekkul li nga xam ne ni loolu redevance la ci kaw loolu daal Balla indi na ay leeral yu am solo nee na moom mosut woo Siteu amut numéro te wóorsul wax ni dina ko may chance waaye xamal ne ba tey ni moom Balla Gaye mu ngi ci lu mu nekkoon euh, démb ak tey nekk ci entrenement am di xaar am na daal staff képp koo xam ne nii bëgg nga bëri ak moom mën nga jaar fi nga xam ne nii foofu nga war a jaar moom nee na mu ngi toog daal di déglu am na ñi nga xam ne nii ñoom ñoo koy teg ci yoon ñoom ñoo koy teg ci kon lool daal euh, Balla Gaye de leeral xamal ne daal moom deram kenn munu ko yàq kon kàddu yooyu nga xam ne nii ñu ngi koy génnee di ko teg ci deram bi moom loolu laalewu ci taxewu ci amul kenn koo xam ne ni mu ngi la doon jàppale ci diggante combat bi nga xam ne ni moo amoon ci diggante Siteu ak Lac de Guiers numéro 2 félicité na Lac numéro 2 encouragé ki nga xam ne ni mooy Siteu génne na daal kàddu yu am solo yu rafet yoo xam ne nii moom lañ doon xaar ci moom mbokk yi leen wax ngeen woy di abonné ci chaîne bi waaye di activer li nga xam ne ni mooy cloche de notification bi bu ko defee bés bu nekk di ngeen fi am ay xibaar jërë ngeen jëf.